di bàyyi xel ci Sèblu TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc ñu door bi la jotaayu xibaar ak politique fukki milliards ak juróom yi ñu teg ngir soqali njaayum darkase kuréel gi ñu dénk liggéey jigéen ñi ak ndaw li moo def lu ni mel fukki milliards ak juróom la teg ngir soqali wut ak njaayum darkase Papa Amadou Ba mi ñu dénk boobule kuréel moo ko xam ne ni ki démb ci talaata ci ca Ziguinchor ñu wëyal ba tey ci politique gouvernement bu Sénégal mi ngi fas yéene amal ni ki suba ci alxamis ci juróom benneelum ndaje bi muy amal ñaari weer yu ne ngir jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi boobu leen ndaje nag ma ngi ko fas yéene am le fee ci building administratif bi ñu jagleel président Mamadou Dia. ca boobu ndaje ki ñu dénk kàddu gouvernement gi di Oumar Gueye ak naataangoom Ndéné Fatoumata Tall mi ñu dénk wàllum ndaw ñi ak Dame Diop mi nga xam ni moom la ñu dénk wàllum liggéey bi ak formation professionnel ñoo fa fas yéene teew ngir tontu ci laaju taskatu xibaar yi. ñu tàbbi ci culture ak bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel aada cosaan ci àdduna wërngal këpp niki àjjuma ji lay doon fii ci Sénégal Abdoulaye Diop mi ñu dénk. boobu bànqaas moo ko fas yéene def di ca waxtaane nag lépp lu nga xam ni mooy jëmal kanam culture rawatina bu Sénégal di ca waxtaane lépp luy jëmal kanam aada ak cosaan bu senegaal ak lu nga xamante ni mooy wàllum communication ñu tàbbi ci ab tiis bu fi am ak génn àdduna ak soxna docteur Baba jaañ mi nga xamante ni faatu na ginnaaw bi nga xamante ni mujjul mucc ca yooyu ginnaaw bi nga xam ne mun mujjeewul mucc ca yooyu gaañu gaañu mu amoon ci ab l'accident benn ci ay bés yi ñu génn ba borom këram génnoon ci àdduna accident ba nag ma nga amoon fee ca yoonu ndar ca ba ñuy dem ci feetu korité ñu buur bi la jotaayu xibaar ak xibaaru bitim réew président Amérique bi Joe Biden moo teg ñaar fukki million ci ay doses ngir xeex jàngoroy coronavirus lu ni mel nag mi ngi ko def ginnaaw bi mu génnee woon ci weeru avril bi ñu génn juróom benn fukki million ci ay doses ngir jàppale àdduna bi yépp ngir ñu xeex mbas mi nga xamante ni mooy coronavirus lu ni mel nag mi ngi firndeel ni Amérique soobu na ci xeexub jàngoroy coronavirus mbokk yi lii lañ leen fa andiloon ci jotaayu xibaar di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen xibaar